mbokki internet yi ñuy bàyyi xel euh, ci sans ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu euh, ñu ngi fii euh, ci Kër Massar noor suñ ko waxee xam ngeen ni xel it na dem ci président Ousmane Sonko di njiital Pastef xam ngeen ni fii ay waxtu rek dañ ko dalal ci bërëb bi ci ab méga meeting boo xamante ne ñoom waa Pastef dañ ko woote nañ dañ fas yéene delloo njukkal kenn ci seen militante boo xamante ñu ngi ko faatoon ci ay at ci ginnaaw ñu fas yéene nag xam naa du ñàkk. rotal fi ay kaddu ci situation yi nga xamante ne également leader bi mu ngi koy dund ndax xam ngeen ni euh, fixé nañu li nga xamante ne wala boog acté nañu euh, procès bi dox ci digganteem ak aji Sarr waaye yeneen yoo xam ne ñu ngi koy xaar ci jëm ci ay procès xam ngeen ni bu euh, bu Mame Mbaye Niang war na fee jaar te moom sax joxe na dig daje moom Mame Mbaye Niang ne ci dimanche bii le ginnaaw 16h dina amal li nga xamante ne mooy conférence de presse xëy na dina ñëw ci dossier boobu Euh, peut-être dikk ci li nga xam te ne également mooy def actualité di euh, procès bi nga xam te ne moom la ñu acté waral ba nag ñu seet maire bi ndax bu ñu waxee euh, commune bu Kër Massar noor ki ko jiite mooy Adama Sarr bokk ci Pastef moom la ñu seet si tey ngir fas yéene ànd ak moom ci wàccaay bi jëm ci boobee méga meeting ak it kiñ ko nar a dara jaale nga xamante ne wax naa ni sànq ni dañu ko faat ci anam yoo xam te ne ba fii ñu waxee yéen jafe na ngir ñu xam lan moo ko waral ñu fas yéene ànd ak moom ci pàcc boobu waaye ñu fi yegsee ci Kër masaar saxaar bu bon bu doy waar moo ñu fi ganasi te bi ñu laajee ñu fi dëkk dañu ne euh, ca mbëbës lay bàyyeekoo njortoon nañu ko sax biñ fi dugg see loolu nag di góom bu muy mbëbës nekk ci xolu Kër masaar di euh, maanaam jibal tooke gu ni mel fii ku fi yegsiwul doo xam saxaar si ma lay wax te daanaka mu ngi visible un peu partout Euh, te nii lañ koy dundee ba keroog ñay lakk wala ñu ko taal di noppi te loolu bu dalee ñi nga xam te ne ay asthmatique lañ wala sax am na ñoo xam ne xëy na si saxaar si lañ jaaree am ci ay jàngoro euh, te nguuru Sénégal léegoo léeg su coowal mbëbës jibee da ngay gis ñu euh, teew fi lu ne ñu digee ko te ba fii ñuy wax yéen décharge baa ngi fii di décharge boo xam te ne bu jéggi dayo la bomb la bu doy waar boo xam te ne mu ngi ci xolu Ndakaaru rawatina fii ci Kër Massar te ñu ngi dund mettit yu ni mel ñàkk xëy na ànd ak maire bi ci waxtaanee ponk yooyu kon nag mbokk yi ñu ngi ci euh, kër euh, Massar euh, Nord fas yéene ànd ak le maire Adama Sarr léegi léegi ñu ànd ak moom ci waxtaan wi. voilà merci beaucoup Babacar suñu man comme ni ñu ko junjee woon sànq ci bi ñuy door ñu ngi fii ci kër Massar ci commune bu Kër Massar noor fekk si fi le maire di aada Sarr mi nga xamante ne moo war a dalal suba. wala boog fii ak ay waxtu la ñuy wax le président Ousmane Sonko njiital Pastef ci méga meeting ngeen woote. Euh, sànq bi ñu dugg si dëkk bi maa ngi koy wax ni saxaar si ñu gane si moom xam naa mbëbës la ñuy junj loolu dinañ ci ñëw parce que góom bu doy waar la ci département bu Kër Massar euh, te bim fi euh, juree woon explosion bi am na yu kilifa yu waxoon fan la ci toll dinañ ci dugg mais déjà bokk nga ci ñuy dalal Sonko wala bokk yaa koy dalal suba symbolique bi ci yenn lan la boobee méga meeting ngeen woote ginnaaw bi ñu la nuyoo. waaw gannaaw ba ma leen fayee di nuyu waa Kër Massar Nord yëpp di nuyu tout le département de Kër Massar di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di wax ni rek comme ni nga ko waxee ci say kàddu yu njëkk suba day am fii ci commune Kër Massar Nord méga bi nga xamante ne ci Pastef da koy organiser Ousmane Sonko war fee ñëw mais également ay leaders yi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi nar fee ñëw. mu doon benn événement boo xam ne événement bu rëy la événement bu mag la et je pense ku dugg tey Kër Massar di nga sentir ampleur bi nga xamante ne si événement boobu noonu am na ko. du la koy wan. bëri na parce que militants yi nañ fu nekk ci Sénégal ñëw pour fekkee bés bi parce que dafa am li nga xamante ne bés bi da koy représenté. Hmm. parce que mun naa ne mooy mitin bi nga xamante ne njëkk dañ ko organiser gannaaw ba ñu yóbbee dossier Sonko bi. au tribunal. Ouais. donc am na benn li nga xamante ne si daf koy wane am na li nga xamante ne si daf koy wane. Hmm. tey jii yaakaar naa ni Kër Massar militant Pastef yi jóge nañ fu nekk ñëw militant yi nga xamante ne ñoom bokk si yeewi askan wi jóge nañ fu nekk ñëw parce que tamit comme ni ñu koy waxee rek la coalition yeewi askan wi est une famille il faut que ñu ñëw aussi dooleel ba su Ousmane Sonko bi il faut aussi ñu ñëw dooleel ba su waa Pastef Sénégal yëpp xam doole bi nga xamante ne ñun am nañ ko mais lan la lan ngeen bëgg a wane parce que junj nga ko sànq da ngeen a annoncé méga meeting ci jamono juñ jàppee euh, ni procès dafay am finalement ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr mhm. ci yéen lan lay doon won ne yeneen fi kenn du leen faat comme ni ngeen ko xalaatee ci wàllu mhm. mhm. son ko dafay bokk. Euh, sens boobu ngeen koy jox. en dehors comme li ngeen junj ne am na seen militant bu ñu faatoon en 2016 di ngeen ko ci rendre hommage. mais réellement lan la mooy wan Sénégal wan askan wi wan ñi ngeen bokkal langue bi. ne Sonko dafay bokk en 2024. waaw Sonko dafay bokk je pense que loolu jarul sax ñu koy natamle wala mu doon benn wax boo xam ne dañ siy dute wala di si am benn xel ñaar parce que aussi Sénégal dëkk le Sénégal est de droit. Hmm. Sénégal dëkku démocratie la. donc euh, élection présidentielle bu ñëwee képp ki nga xamante ni yaakaar nga ni boo tàllalee sa loxo askanu Sénégal askanu Sénégal fay la. da nga war a mun a bokk. Hmm. te yaakaar naa ni Ousmane Sonko tey jii nii partie yi nga xamante ne ñoo nekk si opposition Sénégal si kilifa politique yi nekk Sénégal ah en tout cas mënoo see lim ñett wala ñeent te Ousmane Sonko bokk si kon il tout à fait légitim pour lui bokk si élection yi di ñëw te incha allah dina bokk dara du ko bu fi procès jaaree nag yoon teg koy daan. wala loolu xalaatu leen ko yéen xam nga yoon moom wax dëgg yàlla Sénégal yoon daa am benn gis-gis si nit ñi am. te loolu nekkul gis-gis bi nga xamante ni politiciens yi ñoo ko am wala opposants yi ñoo ko am mais sénégalais lambda bi si boppam da ko am parce que boo xoolee justice Sénégal ni muy doxee ku bokk si état bi fi nekk wala si gouvernement yi wala si régime bi fi nekk pour dire parce que état ñun ñëpp la je ne vais pas dire l' mais si régime bu fi nekk yoon day xaw a yéex yoon day xaw a defal mais une fois que ñu gis benn dossier boo xam ne opposant la concerné wala ki nga xamante ne si coalition Yewwi Askan Wi la nekk ni ñuy gis ni ñuy accélérer dossiers yi ni ñuy gis euh, forme yi vice de forme yi gars yi ni ñu koy jalgatee sax ba tax euh, ba tax na tey jii xel dafa ñaaw trop. Hmm. si yoon boobu. moo tax tey jii dossier Ousmane Sonko bi je pense que sénégalais yëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla bu fekkonte ne dañoo nekk si dëkk boo xam ne dëkk bu sérieux la procès duñ fa egg wax dëgg neex yàlla parce que lu ñuy wax viol balaa moo am ñu ne pénétration am na wala rapport am na. mais wax dëgg yàlla viole boo xamante ne amul rapport d'après d'après li nga xamante ne moom la certificat médical bi wax ñu nar a ubbi procès pour viol wax dëgg yàlla loolu ñëpp xam nañ fu ñu jëm. fan lañ jëm ah dañoo bëgg a maanaam fi nga xamante ne si foofu lañ jaarale woon xalifa Sall fi nga xamante ne si foofu lañ jaarale woon Karim Wade ñu jaarale fa Ousmane Sonko parce que souvent les gens ont l'habitude de dire jamais deux cent trois hmm. mais bii moom trois du parce que la jeunesse sénégalaise elle est ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci langue politique bi on est conscient de ce qui se ce qui peut se passer donc ci euh, procès boobu noonu ba tax na tey nañu taxaw xeex pour yelleef Ousmane Sonko kenn bañ kaa nasaxal. justement nan lañu di xeexee parce que Ousmane nee na résistance gis nañu tamit ci seen kàddu comme si da ngeen ko joxante ñi may gis ci ay déclaration ginnaaw loolu gis nañ jeunesse. def nañ déclaration barki démb suma ma juumul xaw ma démb. Mhm. gis nañ jigéen ñi également benn collectif bu taxaw na Euh, ndaw ñi terrain bi. te loolu lépp li ci jublu mooy Ousmane Sonko balaa ñu koy def dara dañu jaar ci suñu bakkan. résistance yéen loolu la mooy joxe seen bakkan. résistance euh, li ko jar rek moo ko jar xam nga tey jii nii boo xoolee Déthié Fall bind na ne militant PRP yëpp taxaw Cheikh Tidiane Dièye naka noonu Khalifa Sall naka noonu Aïda Mbodj naka noonu kon affaire bi nekkatul Pastef kese maanaam ñëpp ñi nga xamante ne si il se soucie de la démocratie de notre pays mm. xeex bi seen xeex la parce que il faut que ñu bàyyi di nax sénégalais naan Ousmane Sonko doomam yi nii Ousmane Sonko doomam yi naa ñun xeex bu ñuy xeex xeexaluñ ko Ousmane Sonko dañ koy xeex pour la démocratie ba nga xamante ne Khalifa Sall tooñ bu ñu ko tooñ Karim Wade tooñ bu ñu ko tooñ loolu la ñu bëgg mu dagg maanaam Ousmane Sonko kenn du permettre ñu koy xañ yelleefam ak li nga xamante ne moom la ko yoon may pour mu présenter yi nga xamante ne. moo war a am ci mooy résistance bu mu wootee. nu ngeen di résister. mais résistance euh, boo ko déggee bëri na façon on va résister juridiquement on va résister pacifiquement bu jaree xeex ñu taxaw xeex su suñuy yelleef suñuy àkk wax dëgg neex yàlla bu Ousmane Sonko bi nga xamante ne si bëgg na nekk candidat mu nekk candidat man bi nga xamante ne su ma bëggoon nekk candidat ma nekk candidat keneen ku bëgg nekk candidat bu bëggee nekk candidat mu nekk kandidaa mais tey wax dëgg yàlla mënatuñu nangu. régime bi fi nekk Macky Sall di tànn ay candidats yi nga xamante ne si moom lay demee élection. ñi ñi bokk ci Pastef tey wax ni jaral nañu suñu bàkkan bu jaree ñun ñu joxe suñu bakkan ñu joxe ko da ànd ak ñoom ci taxawaay boobu. waa xam nga li gars yi di wax rek no justice no peace Sénégal réew jàmm la jàmm nañ ko yàgg xamee tey jii dañuy ñaan jàmm jooju sax parce que jàmm si la lépp xaj. Mm. ñëpp xam nañ Sénégal dëkku jàmm la. le Sénégal est pays de paix. le Sénégal est de démocratie bi nga xamante ne si waxuma Afrique mais àdduna bi yëpp ko naw kon tey jooy noonu démocratie boobu ak paix bi li ko naree yàq bu naree jóge si justice sénégalais yi nga xamante ne ñoom moom justice boobu dañ taxaw ni li ngeen bëgg a def nii wax dëgg yàlla mënut a nekk. mais lu tax ngeen taxaw rek ni justice dafa nara am taxawaay bu jëm ci xañ Ousmane sonk euh, afiyaam. te depuis bi léegi nit ñaa ngi observé Ousmane sonk du moom rek. muy ànd ak ay avocat te sàkkat nañu war nañoo jege sa fukk ak juróom. ñu koy taxawu di ko layal te ñoom it kóolute bi mu am ci ñoom moo tax mu jël leen te depuis boobu ñuy am taxawaay jëm ci moom. Euh, lu waral yéen ngeen dajjeekoo ci beneen wet gi rek. waaw xam nga taxaw xaxar jëme ci ñoom jàpp ni. olof Ndiaye dafa wax leen tax a mooy faat ko woy. olof Ndiaye dafa wax lu am solo dafa ne ku ndóobin sa maam boo gisee lu ñuul solo say dàll te dafa jóge fa daw. li nga xamante ne si justice daf ko def si cas Khalifa Sall ñëpp gis nañ ko li nga xamante ne si justice daf ko def si cas Karim Wade ñëpp gis nañ ko kon tey jii nii loolu nga xamante ne jàll na doon lu weesu moo tey suñu xel loolu moo tax tey suñu justice mënuñu ko gëm à 100 pour cent donte nag bu ñu nee justice waxuñu magistrats yi parce que y a des magistrats yoo xamante ne ay magistrats yu gëm seen liggéey lañ ay magistrats yu gëm li nga xamante ne mooy justice Sénégal la di def seeni liggéey. mais peut-être que def si am li nga xamante ne rek comme dans tous les corps ñi nga xamante ne wax dëgg neex yàlla ah li nga xamante ne si seen liggéey bi nga xamante ne dafa jëm si wàllum yoon respecté wuñ ko. programme bi suba lan lay doon ban waxtu la fi euh, Ousmane nara nara nara nara agsi. waaw programme bi ah, comme ni nga ko xamee rek méga la. méga meeting bu mag la boo xam ne PASTEF moo ko organisé bu ñu nee PASTEF nag euh, c'est au niveau national ñu koy defee Kër Massar. mu doon ni ma ko waxee sànq benn méga meeting boo xamante ne il faut ñu wane suñu doole parce que aussi seul la peuple est souverain loolu bu ñu koy fàtte. da ci bëgg a jaaral dalal laal seen xel daal. non du dalal xel parce que xam nga Pastef tey Ousmane Sonko balaa meeting bi moo ngi doon def nemmeeku tour kon doonul loo xamante ne lu bees la xëy na tey jii nii lu tax ñu defee Kër Massar mooy bëgg nañ sargal également ki nga xamante ne si mooy Mariama Sarr. bëgg nañ ko sargal. Mm. mais aussi dañ nekk si benn context boo xamante ne mun nañ ne benn at moo des pour élection présidentielle ñëw. Mm. donc tey jii képp ki nga xamante ne yaa ngi def politique rek war nga mun a wane sa bopp pour askan bi d'accord laata ñu ñëw ci Mariama Sané bi ngay wax sànq di militante bi nga xam ne jotoon nañ ko faat ci wàll wi. Mm. am na ñenn ñu bokk ci yéen ci Pastef yuy digal Ousmane sonk ne ko ca jour procès buñ ko jàppee bu mu dem am ñu pare sax pour xañ ko su bëggee dem wuy ji ne bu dem est-ce que da bokk ak ñoom gis-gis boobu. waaw xam nga gis-gis boobu noonu man dama siy d'accord ak ñoom. ah oui wax naa lu tax ma d'accord seeg ñoom mooy que nii képp ku dem tey bay taxaw ne benn Sénégal bu la yoon woowee bul dem rek c'est parce que wóolatoo yoon bi. Hmm. maanaam ñi koy wax yëpp wóolatuñu seen justice. te man mii di wax ak yow aussi am naa si benn euh, gis-gis boo xamante ne si ànd naa si parce que tey ji li mu wax sànq rek ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul la ngay daw. tey jii amaana bu fekkonte ne wóolu à 100 pour cent. dañuy naan Ousmane Sonko demal parce que procès bi kenn mënul si tëj mais ñëpp xam nañ ni dossier bi dafa rax politique. parce que mais boobu noonu du occasion ci moom ca bés ba mu wane ne lii politique la. xam nga ngeen ne ko bu mu dem ba mu jaral leen da ngeen dem. xam nga Khalifa Sall loolu lañ doon wax. rek boo demee nañ lay bàyyi mais ba mu demee lépp gis nañu ko fekk Khalifa Sall loolu lañ doon wax fii la ñu fekk démb la woon Khalifa demal noo justice bi nii justice bi nii mais gars bu verdict bi génnee ñëpp tourné ne ah justice bii de moom day na waar mais justice bii moom. lan la nii lan la fi génne comme verdict Karim Wade koo xam ne nañ la jàpp utal la passeport guddi ñu génne la la dëkk bi mais loolu Sénégal rek la am. kon yow bokk nga ci ñi nga xamante ne bu Ousmane d'accord nday dem ca saa sa ca bés ba fa ngay fanaan ne du génn këram. non man je respecterai décision bu nee du dem du dem. bu fekkee bu nee day dem laa bëgg a wax. bu dee day. bu nee day dem. li nga bokk ci ñuy wax ni bu mu dem. bu dee day dem. waaw xam nga décision boobu aussi day doon benn décision boo xamante ne. peut-être euh, usman Sonko rek du ko jël parce que dafa am ay avocat comme ni nga ko waxee mais en tout cas ñun ñi nga xamante ne si ñoo ngi nekk si coalition Yewwi Askan Wi lépp li nga xamante ne si Ousmane Sonko jël na ko comme décision rek dañ siy ànd ak moom parce que xam nañ ne dañ ko nar a tooñ. Hmm. Euh, Mariama wax na ko keroog ci bi muy def speecham que ni bokk na ci symbole yi wane ni dañ leen di persécuter yéen ñi bokk ci Pastef xaxaat jëm ci ñun di leen menacer da ngeen di plainte léegoo léegi mu jëm ci yoon hmm. du mujj fenn. te su koy tudd day tuddaale kaaw ki nga xam ne mooy Mariama Sané bi ñu faatoon en 2016 su ma jumul euh, dossier boobu ni mu ko waxee noonu la mujjul fenn mhm. ña ko faat kenn mënu la identifié wuñu la xamuñu ñan la waaw dossier bi en tout cas su ñun information yi nga xamante ni jot nañ ko mooy ñi nga xamante ni si ñoo ko def jàpp nañ leen mais wax dëgg yàlla gisaguñu benn procès bu ubbi ba nga xamante ni si ñooñu taxaw nañu gars yi ñëw ubbi tribunaux yi pour àtte leen loolu amut pour les mais dégg nañ nag wax dëgg yàlla jàpp nañ leen fële sa Tamba mais ba léegi gisaguñu procès. jot nañoo identifier ba xam ñi ñu jàpp ñana. waaw dégg naa jàpp nañ leen. te xam nañ lan moo waraloon faat geeg yooyu. effectivement mais procès bi daal nañu gisagut. mais lan lañ joxe comme motif lu waraloon ñoom ñu faat ko. non motif yi rek wax dëgg yàlla maîtriser wu ko parce que damay bañ a wax aussi loo xamante ne si maîtriser wu ma ko mais li nga xamante ne am naa comme information mooy téye nañ leen gendarmerie téye na leen donc euh, gendarmerie téye na leen nag wax dëgg yàlla li ci des mooy ubbi procès ñu xam déjà ñan ñoo leen rey ñu mun leen identifier ne diw sàmb bi wala paate bi wala bàcc bi bokk nañ ci rek ñu rey euh, Mariama Sarr parce que loolu tamit day tax rek justice gën a am doole day gën a parfaire suñu démocratie day tax réew bi gën a dëgër. Hmm. Kër Massar day jooy wàllu sécurité amaana wax nañu sànq ni bi ngeen annoncé seen méga meeting lu ne wàcc na fii. waaw ci ay tàkku der. bëri na euh, ci leen ci yéen euh, rawatina yow maire bi lu muy tekki mooy. Mhm. dañu ñëw pour sécuriser wala book nu ngeen koy jàngatee. waaw ñun de force de défense yi bu ñu wàccee fii dañuy jàpp ni sécuriser askan bee leen tax a jóg. wax dëgg yàlla parce que meeting bi nga xamante ne si dañ ko woote suba meeting la bu ñu autoriser kon bu ñu gisee gendarmerie wàcc bu ñu gisee police wàcc ak seeni saar. ak seen i oto ak seeni blende wax dëgg yàlla ak dispositif bi nga xamante ne indi nañ ko tey Kër Massar dañuy jàpp ne rek pour euh, sécuriser militant Pastef fii ñëw la pour aar leen ba dara du leen dal loolu la ñuy jàpp ñun. Hmm. waaw ñun loolu la ñu jàpp di wax ni rek également bu meeting bi jeexee gendarme yooyu ngir yàlla bu ñu ñibbi dañ toog parce que ba démb rek gis nañ ci journaux yëpp ki nga xamante ne moom la ñu rey fii Kër Massar ci Grand Médine. rey bi nga xamante ne ay bal la. pour wane insécurité bi nga xamante ni si am na Kër Massar moo tax dañuy profité rek si meeting bi di wax Ousmane Sonko moom na koy def chaque jour Kër Massar. Hmm. comme ça gendarmerie di fi gën a bëree nii rek. Hmm. su ko defee sécurité bi mun fay des. <laughs> waaw alors maa ngi koy wax sànq également peut-être fa la ñuy jeexalee daaw heure bi hmm. yéen ngi ci woon ci ay jongante. élection locale ba nga mujj yooyu nga jotee ci mairie bi. la nga diggoon waa gox bi. ndax am na loo ci tàmbali bu dee waaw lana waaw ba ñu ñëwee daaw yàlla def ñu nekk si boppu Kër Massar bi je pense que wax dëgg yàlla si at bi li ñu si jot a def bëri na bëri na trop sax si kiy doog a commencé. Hmm. parce que tey boo toogee Kër Massar nu mu toll yaatu ba bëgg a dee mënul musul am stade municipal nga nekk mais rek lancer marché boobu tey boo duggee surtout DCMP gis nga ni lancer nañu marché stade municipal bu Kër Massar si un na kon loolu wax dëgg yàlla lu rëy la. tey jii boo xoolee ba ñu toogee poste de santé Amdoulaye ak poste de santé Daaru Daaru Miset yooyu yëpp ñoo ngi si ay infrastructure yoo xam ne wax dëgg yàlla ba ñu toogee si at rek mun naa ne lancé nañ lépp. Mm. donc loolu sant yàlla la. boo xoolee également côté éducation lu mosul am Kër Massar bachelier yi fi am bag yëpp mun naa ne ñëpp la ñu jël fay leen ay bourse si école euh, supérieure yi école privée yi nga xamante ñoo nekk si réew mi fii yóbbu leen fa di leen fayal mu doon bourse boo xamante ne si nañ leen di ba licence Hmm. lenn rek mooy tax nga ñàkk mooy nga redoubler parce que bañ leen di recevoir wax nañ leen du leer neena nañ leen xaalis bi xaalisu Kër Masar du xaalisu Aada Masar Kër Masar ñoo dajale seen xaalis jox leen mun naa ne tey Kër Masar ñu am bag yëpp ñu si ëpp jox nañ leen bourse pour euh, ay formation professionnelle loolu bu weesoo également Kër Masar 96 lañ ko def commune 96 ba léegi ñaari yoon rek la mairie bi mos a les ASC qui sont là ñun suñu première année 9 mois la ñu def. ay CEPS subventionné nañ leen bu ñëwee si wàllum njàng mi également école yi nga xamante ne ñoo nekk Kër Massar yëpp sur les neuf mois école bi si nekk équipé nañ la école élémentaire yi nga xamante ne mairie bi moom la yor équipé nañ leen étudiants yi nga xamante ne également ñoo nekk si université yi wax dëgg neex yàlla jàppale nañ leen donc mu doon ay jéego yoo xamante ne si ñoo ngi koy def boo xoolee poste de santé yi fi nekk yëpp pentiraat nañ ko defaraat pour xar kanam bi baax pour askanu Kër Massar bi nga xamante ne mooy dem foofu di faju mun a nekk si ay conditions yu baax ay condition yu mucc ayib maanaam projet yi nga xamante ne si wax dëgg neex yàlla def nañ ko fi si 9 mois yi bëri na moo tax ñu yaakaar ne 5 yi balaa muy jeex lu bëri li nga xamante ne askanu Kër Masar ñoo ngi ko doon joye dina changé. dégguma ci alam gi te gis nga sànq maa ngi la ko wax bi ñuy dugg si nooy mm-hmm. xet bu bon bi. loolu aussi li koy indi mbëbës te euh, environnement ci compétence transférée yi la bokk. Mm-hmm. lu ngeen ci jéem ak ci place publique bi c'est vrai que ni. bi ngeen doon jooy ni fii xat na ci rond point ba pont lañ leen indil. am na ñu doon wax ni. Mhm. Euh, saafara ju jur jàngoro la. est-ce que réellement waa ci position beeg yu ni. position bi moo baaxul loolu c'est une réalité. quand même euh, œuvre bi dañ koy rafetlu. pont bi wax dëgg neex yàlla dañ koy rafetlu. mais positionnement bi maanaam direction bi nga xamante ne moom la pont bi jël. Hmm. waru ko woon jël. parce que tey jii nii mun naa ne embouteillage yu doon am avant pont bi ma tey dafa gën a yokk donc loolu moo tax ñuy wax. maanaam ni nga ko waxee si olof sax jàngoro ju saafara ju jur saafara ju jur jàngoro la parce que embouteillage bi ba tey jii nii may waxee yow dafa gën a bëri parce que tout simplement la direction bi nga xamante pont bi moom la waroon jël mm. jëlu ko mais nag infrastructure bi en tant que tel ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax parce que njëriñu Kër Massar la njëriñu askanu Kër Massar la euh, li nga xamante ne également mooy mbëbës yaakaar naa ni si 2023 bi nañ ko war a tëj li nga xamante ne si mauvais souvenir lay doon pour parce que ñëpp gis nañu euh, bu ngelaw amee wala mu sedd yenn sedd yi wala mu am quelque règlement climatique yu am rek da ngay gis saxaar bi nu muy duggee si koñ yi jur ay jàngoro jur ay feebar lu ñu fay taal la wala day jékki-jékki rek noo day jékki-jékki rek tàqal boppam kenn du ko taal tàngaay bi mbalit bi plastique yi ñooy ñëw dem ba composé wu tàqal seen bopp ndax chaleur bi nga xamante ne moo fay am mu doon également loo xamante ne wax dëgg yàlla yàgg nañ ko joytu mais incha allahu rabbi je pense que si année 2023 bii ma bës dina tëj carrément. mais est ce que am ngeen ci yaakaar parce que ñaata yoon lañ ko annoncé. non day lan ngeen am firnde luy wane ni en 2023. day tëj parce que projet bi commencé nañ ko projet bi commencé nañ ko depuis presque ans am na ay liggéey yi nga xamante ne ñoo ngi fay am ñi fa nekkoon di liggéey daje nañoo ñoom waxtaan nañoo ñoom ñoom ñëpp accordé wu nañ si projet boobu noonu. et phase finale bi 2023 la man semaine passée rek maa ngi woon 16 banque mondiale si corniche bi. si loolu lañ doon wax donc euh, sori na trop. parce que euh, état du Sénégal da si nekk euh, l' agence française de développement da si nekk. AFD la coopération espagnole daf si nekk. mais également la banque mondiale da si nekk. donc ñooñu ñoon ñëpp ñoo boole ak commune Kër Massar Nord ak euh, la commune de Malika. boole seen doole pour Mbeubeuss mun fee jógee et je pense que ñoo ngi si phase finale bi incha allah. da ngeen koy def suivi yow da dem sur le terrain di xool réellement est-ce que liggéey bi fan la toll. parce que bu ñu waxee Mbeubeuss ña fa ne surtout. fi mel ne comme si dañu am doole ju leen di may saa yuñ ko annoncé dara du ci dañ. est-ce que comme ni nga ko waxee noonu ñoom am nañu intime conviction que ne wax looloo am. mooy ne bu jotee buñ koy tëj dañ fay jógee. non non dañ fa jógee xel dal na. parce que phase boobu noonu romb nañ ko. phase bi nga xamante ne si moom nañu waroon waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo fay daan seen doole. Hmm. romb nañ ko bu yàgg waxtaan nañu ak ñoom juboon nañu ak ñoom fi leen wala réinsérer xam nañ ko. ñoo ngi liggéey ak ñoom en parfaite collaboration en parfaite symbiose. Hmm. loolu moom wax dëgg yàlla dépassé nañ ko bu yàgg. li nga xamante ne moo des rek mooy yenn travaux yi nga xamante ne war na fa am parce que dañ ko bëgg a modifier def fa yeneen infrastructure yi nga xamante ne dina jural njëriñ askanu Kër Massar. Hmm. donc euh, phase boobu moom wax dëgg yàlla euh, romb nañ ko te loolu moo tax ñu naan une gestion inclusive dafa am solo loolu moo tax ñu naan une gestion participative dafa am solo. Hmm. parce que amaana tey bu fekkonte ne waxuñu ak ñooñ di fa daan seen doole mun na jur coow bi nga xamante ne Sénégal yëpp dinañ ko dégg mais dañu waxtaan ak ñoom ànd ak ñoom si liggéey bi du début à la fi moo tax liggéey bi xaw a yomb intercommunalité souvent jafe-jafe la seen biir ah diw fee bokk kee bokk fële ba du doon réalité ci commune yi tey mm-hmm. département la ñuy wax Kër Massar mm-hmm. euh, est-ce que réalité la fii intercommunalité waaw intercommunalité bi wax dëgg yàlla Kër Massar nag li ñu may chance mooy que six communes yi boo ko jëlee eh. cinq yëpp yow askan wi lañ bokk eh. et même commune Malika bi nga xamante ne benn bokk yaakaar moo ko gagné wax dëgg yàlla amuñu réeroo ak euh, le maire qui est ak l' équipe municipale qui est à Malika donc euh, conseil département bi également euh, ñoo ngi liggéey ak moom bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sans aucun faille sans wax dëgg yàlla ñoo ngi liggéey nu mu waree ah ba tax na nag Kër Massar amaguñu problème boobu. Hmm. Kër amaguñu problème mu intercommunalité parce que maire yi déggoo nañu maire yi xamante nañu sax avant ñuy falu. xam naa tamit loolu moo gën a yombal mbir yi euh, di wax ni rek boo xoolee fi nga xamante ne mooy pont Kër Massar dafa nekk à cheval entre la commune de Kër Massar Sud la commune de Kër Massar Nord donc foofu noonu pour mu jag intercommunalité moo ko mën a moo ko mën a jagal parce que tey jii nii euh, Kër Massar Sud bu fekkee dafa defar wàllam ñun defara suñuy wàll nit ki nga xamante ne day dugg Kër Massar moom xamul fu sud ak nord yem bu ñëwee danaan Kër Massar rek baaxul bu fekkee ñun dañoo defar sud defarul kazalika ça sera la même chose moo tax foofu noonu inter communalité moo fa mun a indi saafara bi nga xamante ne moom la askan wi dund moo tax ñun ak waa commune Kër Massar Sud ñoo ngi liggéey pour xool naka lañuy def ba nga xamante ne condition de vie maanaam ñi fa dëkk ak condition de vie ñi nga xamante ne ñoo fay daan seen doole day doon condition bi nga xamante ne dañ koy am euh, dañ koy améliorer bu baax a baax a baax a baax a baax ba ñu am benn nekkin bu mucc ayib. alors ñëw Ousmane Sonko fa la ñuy jeexale lan nga jàpp ne moom lay jural euh, département bi bu fi yegg si suba ndax am ngeen ay plaidoyer yu leen intéressé yu ngeen nar a ànd ak moom suba euh, wala lan ngeen jàpp ne xëy na ñëwam dina ko dina ko indi waaw ñëwam dina am solo parce que aussi euh, Pastef day rendre hommage ki nga xamante ne mooy Mariama Sagna et je pense que am na solo trop nit bu nekkee si yow ba wàññeeku ngay rappelé wu kii moo ngi woon si man kii moo ngi woon liggéey pour man donc loolu dafa am solo euh, leneen li nga xamante ne si également euh, dina am solo si loolu mooy saafonte bi nga xamante ne si euh, le leader di PASTEF Ousmane Sonko war na ko saafonte ak askanu Kër Massar ak Kër Massar donc loolu am na solo ñu yaakaar ni mun na jur li nga xamante ne benn lien bu fort lay doon entre ñi nga xamante ne ñoo nekk Kër Massar les militants de PASTEF qui sont à Kër Massar ak le leader Ousmane Sonko. nu ngeen ko nar a teeroo donc dañ koy teeru teeru bu gën a rëy si teeru yi parce que li ma la wax rek sànq on est de tout cœur avec lui parce que tey jii nii euh, ñu seetaanee ba li nga xamante ne régime bi fi nekk loolu la bëgg mu dal si kaw Ousmane Sonko ëllëg mun na nekk man ëllëg mun na nekk keneen moo tax loolu noonu il faut mieux ñu boole suñuy doole doon benn xeex ko ba nga xamante ni ëllëg kenn du mën a xalaatati loolu parce que on le fait pas pour Sonko mais on le fait pour la démocratie pour la liberté. te tey jii nii bu ñu seetaanee Ousmane Sonko ba li nga xamante ne moom la mag Macky Sall bëgg am mu teg ko si kawam rek suba ku jugaat bëgg a présenté wu mën na la def comme Ousmane Sonko. Hmm. waaw ñu ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup maa ngi leen di gërëm bu baax baax a baax di leen sant. Hmm. jërë ngeen jëf. mu ngook le maire Adama saar di maire bu commune nord bu Kër Massar ñu koy gërëm di ko sant.